jotaayu tay bi solo si mu am tax ñoom ñëpp ñu teew fi euh, nit nag dina dem ci jotaay bu ne ndax cër bañ ko fay jox wala cër ba muy joxee ca jotaay ba dem di déglu loo xam ne lii xëy na bu fay jógee mën naa booyoo noppam te du ko wax waaye ñun suñu teew fii day yëg-yëg bu rëy rëy rëy rëy bu ñu fi ñëwul woon def musiba ndax euh, lii ñuy waxtaane moom lu am solo la ci ñun xam naa yaakaaru moon ni sax

wala nga làkk espagnol boobu ngay ëpp maqaama walla daraja ci askan wa je parle français am speaking English yow hablo castellano yooyu yëpp moom la nit ñi di bëgg a teg ci seen i dënn yaakaar dañoo tekki dara waaye ñi jàng diine xam nañu ni nit la koy faj ma nga ci suufu tànkam loolu amul naatable làkk ba nga nàmp boko ko mokkalulee jariñoo ko du la jariñ ndax ku xeb sa lak mu lak sa dàgg su ko kon bu fekke ni dañoo tollu ci di xamle li wara tax ñu jëfëndiko suñuy lak te amul natable ni moy njariñ ndax li tubab di wax raccourci ñu mën ko teggi yoonu teggi yu tax sa yoon gaaw bu fekke ni da nga wara jang tubab ci juróomi at ci ñu jaaw ci maanaam liifantu ak wagn salang defé ci sa lang sa baat manam ci sa làkk bi nga namp yow ci la gëna gaaw ci la ëpp waye nak euh, duñu lay suñu bop la ndax yewu nañ ci waye lan lañuy def pour fësal ko daanaka moom la bëgg a tay ndax moy promotion bi tax promotion fësal bi tax suñu lak réew ñu mën kontaan nañ lool ci teew fi li tax ñu teew fi nag yàlla na yàlla def muy njariñ buy saawan baawaan yegg si ci ñëpp ñu xam njariñ mi te gis njariñ mi tey ak ëllëg ak suba incha allah rabbi ñu ngi leen di sant leen gërëm baax. di nuyu conseil yi fi teew di nuyu le président du RETO sama papa Momar Talla Mbaye di nuyu agent municipaux yi fi teew yépp di sant yàlla di julli ci sangu-sang yi Seydina Mouhamed Rasulullah mi ñu fi dajalewaat ren ngir ñu màggal ñeent fukkeel ak juróom-ñaar ayu bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel làkkum réew mi maanaam kàllaamay réew mi di fàttali nag ne du lu ñu samp noonu rekk dafa am fu mu jóge fi mu jóge mi ngi ci depuis 1966 ci ndaje mu mag moo xam ne mbootaayu xeet yi dañ koo amaloon te ci biir ndaje moomu ca la ñu décidé que ni juróom-ñetti fan ci weeru sàttumbar bu nekk dañuy nañu déclaré ko ne bis boo xam ne ci àdduna wërngal képp dañuy màggal làkkum réew mu nekk senegal nag jàpp ne benn bis doyul ndax sunu ñaari meer yi ci seen kàddu wax nañu solo bi jàng ak jàngale ci làkk bi nga nàmp am solo ba tax na Sénégal jàpp ne benn bis doyul waaye ayu bés sax doyul waaye boo mën mënul am benn bis nga jël au moins ayu bis boo xam ne saa yoo yeewoo di nga ci wax di nga ci jëf te it di nga occuper devant wu seen bi pour mën a def promotion wu làkk bi nga xamante ni da nga koo nàmp ren nag ñu bëgg nekk waxtaan wi dañ ko bëgg a tënk ndax at mu nekk dañuy tànn benn aspect boo xam ne dañ naan ci làkkum alphabétis ci alphabétisation ak langue nationale ci thème bii la ñuy waxtaan ren ñu ne nu ñuy sopparñee bërëbu jàngkaay yi yi nga xam ne fa la ñuy jàngee kàllaamay réew mi loolu mooy thème bi nga xam ne àdduna bi yépp moom lañu bokk waaye xam nga tem bu ko àdduna bokkeet ku ci nekk réew bu ne da am loo moomal sa bopp ak say problème yi bopp ak na nga xalaate ni moom nga war a faje sa mettit Sénégal juge ci tem boobu gëstuwaat ba ne nañu ko gën a centré suñu waxtaan ak suñu weccante xalaat ci nan la ñuy gën a diversifier maanaam def ko ay pàcc-pàcc ci soppi également bërëbu jàngukaay yi ci loolu ñu bàyyi xel ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo taxaw suñu kanam di mën a indi tënk-tënk ci tabax nit mooy développer le capital humain tem boo xam ne nag jógewul ci nii rek dañ koo xalaat xalaat bi mi ngi jóge ci mbas mi fi jóge ñu gis ne mbas mi am na ay teq-teq naam am na ñu ci ñàkk seen bakkan ñu leen di ñaanal am ñu ci jële ay sekel économie bi nërmeelu secteur yu bare am ci ay jafe-jafe waaye it mu am lu mu ñu jàngal li mu ñu jàngal mooy ñu bare ñi ci seen bopp yëkkatiku mooy ñi nga xam ne dañ doon ut jum euh, utiliser jumtukaayu xarala yi bees yi ba tax na mbas mi daf ñoo imposer li ñuy tuddee numérique ak digitalisation ak njàng moo xam ne day boole bokk toog janoo ki lay jàngal wala ku nekk toog fa nga toog te terewul ngay jàng ndax bu ñu nee toog leen seen kër mu nekkoon slogan bu njëkk ci biir mbas mi waroon nañoo mën a continuer lépp lu ñuy jàng ci distance bi ñu nekk waaye bu ñu teg lépp nërme lépp ndax dañ ne toog leen seen kër. tey jii nag waxtaan wii ñu fi amal mu war a nekk waxtaanu wecconte xalaat wecconte xalaat ci ngir naka lañuy ñuy sensibiliser nit ñi ci ñu xam ne waxtu dafa toll foo xam ne fi mu ne nii toog di jàng ci salle de classe boo xam ne quatre murs la. dañ ko war a dépassé waxuma ne dañ ko war a effacé ba mu sedde mais dépassé dépassé mooy nga jël la ca baax nga téye waaye it bu mu la teree màgg jëm ci loo xamante ni jamono moo ko laaj ndax bu jamono laajee doxalin bu bees taxawaay bu bees waroo taxaw fa nga taxaw rek ne duma ci jóge ndaje tey bi tam occasion la pour def plaidoyer pour que objectif yi nga xamante ni yëpp au niveau national dañ ko amoon ñu atteindre ko mais également recommandation yi nga xamné ne dañoo jugee ci niveau international ñu mëna xol fan lañ ci ndax té légui kenn dundatul ci manière bu isolé né man dëkk la bo xamné duma du kenn ci biti kenen ci biti du jëflanteeg man on est un village planétaire lu xew fi yang koy dégg fenen bala ngoon la xew fenen nit yang koy dégg fi bala ngay tëdd ci kaw ma yaakaar ni tay ji waxtaan ni ñi fi nar a am dinañu tax ñu mën fee génne ay taxawaay yoo xam ne yu am concret maanaam ay action concrète yoo xam ne du doon lu ñuy layam layamal nii mais dañ ci teg baaraam ne mbir mii bu ñu ko defee war nañoo mën a jëmee fii bu ñu weesoo ci loolu contenu enseignement yi maanaam li nga xam ne moom la ñuy jàngalee jàngalekat bi li muy téye njox ko ni ko jàngalee ko mu nekk loo xam ne dañ koy harmoniser

ba le 14 incha day am ay actions ñuy def fi ak feulé ak feulé di ci waxtaan fi par groupe di ci waxtaan feulé par groupe pour dire que au bout du compte buñu démé ba semaine bi di jeex ñi ñu atteindre ñëpp mën nañoo nekk un nombre très très important. du mëna tek sama wax nak sans remercier monsieur le maire de Thiès Ouest ci turu IA inspecteur d'académie de Thiès mi nga xamné mo bëggona bëggoon fi tay waye mu nekk séminaire ku ne xam na ne ñu ngi ci mois de septembre di waajal ubité école bi di leen remercier Thiès Ouest ci collaboration franche bi ci appui bi ci soutien bi ñemewuma wax ne ndax yàgguma ci inspection d'académie bi nekk guléet que euh, collectivité véritablement jël en main la semaine nationale de l'alphabétisation gunge ñu ci en co-construction di wax ne tamit sa ndaw gi ngay yebal ci ñun muy monsieur Coly nekk na nit ku engagé nit ku dynamique nit koo xam tamit nek na ci benn tànkam mi ci éducation benen tankam nek ci biir mairie bi mu nek donc ndaw lo xam ne maa lay biral ni la bala ñu koo soxla sax ñu gis ko suñu kanam mu ñëw taxaw di leen remercier di leen jaajeufal ci sen déglu ak di leen balu ak ci guddal wax bi jërëjëf dañuy toftal li nga xam rek lool la maire bi wax manam ne làkk réew yi rawatina bu Sénégal dañuy seet naka la ñuy def ba lëkkale leen ngir ñuy mën di xàccandoo di dóorandoo lu am solo la ndax man bambara la man mudu Konaté laa tudd mbéb ba ma naan fara mais dégg naa bambara dama koy làkk ndax suñu organe bële maa fay def xibaaru olof maa fay def xibaaru bambara kon cofuma ko dégg naa ko bëgg wax rek ci mbirul mbinn mi nga xamante ne ñun dañ koy jëfandikoo si suñuy làkk réew ñemewu maa wax beneen làkk suma làkk réew Mamadou laa tudd sant Konaté dëkk commune Fandène xam naa sama date de naissance je ne suis pas né vers je suis né le kon aw ma jugement te itam fii laa jàngee école alxuraan yitam fii Thiès laa ko jàngee ci oustaz Khalifa Kebe oustaz jiite itam xam naa ko donc kon sénégalais laa euh, mbind mi nga xam ne ñu ngi koy bind ñun ñi neen xamante nañu bu baax a baax a baax suñu sukkandikoo tuuti nag si décentralisation li wax. kon hymne bii ñu teg sax kon duñ ko jarul ñu koy jéggaani ci Souleymane Faye dañuy yem fii ndax am na ñu ko bind ba pare am na itam ñu ci xalaat ba pare am na ñoo xam ne loolu rajo yi ñu ngi koy doxal ba pare kon suñ doon sukkandiku ci décentralisation ak di gëstu mbir mi nga xamante ne bii lii monsieur le maire wax léegi ne lëkkale bindkat yi lëkkale làkk yi dafay am kon yaakaar naa acteurs yëpp kon danoon nañu xamante ba nga xam ne ne kenn ku ci nekk li mu mën ak li mu mënul dinañ ko mën a xam waaye nag su yoon jeexul waaxu si du jeex ñun nag ay bindkat lañu comme xëy na man maa si gën a doon sax bindkat bu ndaw ndax man li ma bind barewul waaye tamit dama koy santee yàlla ndax bind benn téere ñaari téere bu ñett ba ñeent yombul waaye loolu ñu bind loolu yëpp nag dañuy jàpp ne li ñu yor si ay manuscrit moo ko ëpp muy man nag muy samay naataango Samba Ginda day bind ci pulaar jai Njaay day bind ci olof man damay bind ci olof ak ñeneen ñoo xamante ne peut-être mbir mi yëguñu ko kon ñooñu ñëpp nag suñu leen mënoon capitaliser di leen dajale comme nii ngeen waxee nii yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk fi doon jaraafu gox yi kon def naa ñun kenn ku ci nekk dina gis boppam waaye itam dina am ndimbal boo xamante dina am suñu diggante ak yéen ci wàllu mbind rawatina làkk réew bi ñun ñëpp ci média la ñuy liggéey ah waaye ñun xam nañ ne suñu naataango yi liggéey ci rajo euh, média ni ñuy làkkee olof dafay gàllu góose dañuy waxee du mu leen neexee suuf si ñu ne suuf bi asamaan si ñu ne asamaan bi ak ñoom seen ak ñoom seen yooyu yëpp dafay faral di am te loolu nag ñi not làkk bi ñu ngi fii di koy bind di ci wax di ci xëy suba ak ngoon guddi ak bëccëg kon ñooñu itam war nañuy fexe yéen it ngeen capitaliser yu demee noonu si gox yi ngeen dëkk ñu ngeen ñu xam ne ne ñii kat ñu ngi fi li am solo daal moom mooy mbind mi daa naka nag dañ koo ba daanaka dañ koo ba ndax bind boo xam ne soo bindee da ngay ñëw rek di denc kayit di ñëw rek di denc kayit di bind rek di ñëw di denc kayit da ngay dem ba mujj yow xalaat bi dootu ko jaral ngir ngay mun di bind day dem ba mujj itam ay mbóot ñoo lay sonal ci kayit yi fu ñu ne te mënoo saa su nekk ngay désinfecté su yàggee yow sa bopp yaay soj wala nga am beneen feebar boo xam ne lay dal te ordinateur yombagul yomb boo xam ne ne bindkat bu nekk war na koo mën a am kon bindkat yi ak ñi nga xam ne ne ñoom ñooy léeb ñoom ñooy taalif ak ñoom seen ñooñu war nañ leen mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax bàyyi xel bi nag mooy làkk moom bu mu munti doon bu ne cim réew suñ ko fonkul rek suñ ko fonkul rek lu bëri day des ginnaaw lu bëri day des ginnaaw lu bëri day des ginnaaw ndaxte ñun ba ñuy jàng làkk réew mi fekk na ay magum jëmm lañu waaye bala ñu see def ñaari ñaari at bind nañu téere boo xamante ne bii man de sama téere man laata ma koy yóbbu fañ koy xool Aram Fall Diop bu euh, chef département linguistique moo ko jëkk a xool bu IFAN mu ne ma kii su génnul xaw ma ban téere génn waaw may bambara bind ci olof. jàng ko am ci pas-pas kon yëf yi pas-pas la monsieur le maire mbiru làkk réew mi du rek wax bu ñuy wax nii rek di ko bàyyi ndax nag wax dëgg yàlla semaine de l'alphabétisation dañuy war a wax suñu kàllaama yi ni mu waree sax ministère boobu sax taxawul sooy seet ay 4 pour cent lañ lay jox ay nangam na loolu mënut a lijjanti dara te ñëpp xam nañ ne alphabéti alphabétisation fonctionnelle lu am solo la ci askan yi nga xamante ne vraiment maa ngi bëgg a guddal li ma bëgg a wax bari na waaye nag lii sama xalaatu bopp la rek la ko sama xalaatu nata yi mais en tout cas maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne na ñun lii kuñ ci woo dañuy ñëw kuñ ci woowul itam dañuy ñëw ba ci palanteer yi ñu taxaw di yorlu ndax daf ñoo soxal kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf fedde tan ɓamtaare ɓiɓe yummare ennduɓe faandaare punndi yimɓe eeri ngootaako enen fof ko hawwa woni yumma enen fof ko adama woni baaba renɗo kinɗe natti en nafde renɗo kinɗe noddi ko ustare woɗɓe pecci en mbaɗi en samuji ɓe ko fulɓe ɓe ko tukolor ɓe ko lawɓe kenen ɗum bange looni semmbe majjini miijoji dari gondi mbi en jiidani seede allah leñolam seerani dikko pulla labba ko sambajo dikko pulla demba ko bambaɗo fof ko fulɓe jiiduɓe ceerani care golle jaari fannuji goto fof na yacci ɓuuri e leydi gande keewa faggudu men yaaja pullo tan ko muydol mbimami e paane halde haalde ko hersal dananuji nyaaja dangal de jere bedda fof e jaɓɓal ñaajoɓe jiɗe pular ka koye demgal aljannaaji ko musidɗo mon bayo sammo gay walla mamadou gay ko dungel e wuuro doore wul samba e sama mbañ merci sant di geureum bu baax madame Diop secrétaire général de l'inspection d'académie de Thiès Euh, di nuyu mbooleem ku fi teew moo xam délégué de quartier la moo xam dafa jiite kuréelu jigéen moo xam dafa jiite beneen mbooloo moo xam day liggéey ci mairie bi ba ñi nga xam ne ñu ngi ñu gunge ci animation bi ak la presse ñu ngi nuyu ñëpp euh, mais dafa am ku ma bëggoon a sepp nuyu ko tuuti rek muy Yaaya Koli di ko EG wax na ko waaye dama koy waxaat te wax waxaat du bari wax waaye solos mbir ma moo tax ñuy waxaat man maa ngi koy doog a xam ñu bokk di liggéey ñu ànd ak moom di liggéey liggéey bu rafet ci lii muy loo xam ne dafa tumuranke ci ñun tumuraanke gis ku jóge ci benn collectivité territoriale taxawu alphabétisation sonn ci bu pare nangoo abrité journée dans la semaine loolu wax dëgg yàlla neex nañu te seet nañ ko jàpp nañ ko moo tax ñu bëggoon a jaajëfal monsieur le maire yëgal ko ne ko yaaya day taxawaayam rafet na ñun kontaan nañ ci ñu ngi ko gërëm di ko sant mais danañ ci profité monsieur le maire ñaanale leen danaa ñëwaat ci kanam ndax éducation dafa nekk compétence bu ñu transféré maanaam mën-mën la boo xam ne bokk na ci ngeen doxal yéen commune yi kon bu li amee day nekk occasion pour ñun ñu ñaan leen ngeen gën a bàyyi xel ni ko ñenn ñu waxee alphabétisation ngeen tàmbali donte benn classe ngeen di ubbi ba keroog xëy na mandat bi di jeex di ngeen gis ne lu am solo la dina ñëwaat ci kanam ci lu xëy na loolu lu tax ñu mën ko def ak naka lañ ko mën a defee ak njariñ bi mu amal ci dëkk bi ak njariñ bi mu amal conseil municipal kon loolu ci sant rek la woon ak gërëm kii di Yaya Yaya yi mais maa ngi nuyu di sant également sama natango yi nga xam ne ñi ngi ci inspection d'académie bu Thiès ak inspection d'éducation de la formation de Thiès ville Thiès département Tivaouane Mbour 1 et Mbour 2 ñom ñi nga xam ne yor lépp luy jàngu alphabétisation ci dëkk yoy ma wax di leen nuyu di leen gërëm di leen sant seen taxaway mbolo mi du waxtaan wu gàtt lay doon rek wu ñu tënk ci li nga xam ne mooy tomb bi nga xam ne moom la ñu ren ci Sénégal ak ci aduna bi yëpp ngir ñu war ko waxtaanee balaa loolu nag euh, SG fàttali ko ñaar fan ak juróom-benn ñaar fan ak juróom-benn ci ñu 1966 atum junni ak juróom-ñeent ak at ak ak ci ak session bi ci ONU ne 8 septembre juróom fan ci septembre nañ ko at ba ca topp 1967 aduna bi yépp di ko màggal Sénégal tàmbali ko 1975 daani comme benn jour la euh, kii onu joxe man léegi une semaine lay def mais ñuy fàttali li tax ñu koy célébrer mooy ñu xam ni kon association lu am solo la maanaam bu ñuy célébrer 8 septembre c'est pour rappeler maanaam dañuy fàttali ñu ni bis bisbu, bis bu am solo lu pour ñëpp di ko bàyyi xel loolu moo tax ñu koy def loolu moo ñuy màggal ñu ga màggal mais jàppaleen ni mbooloo mi Sénégal gi ñu nekk téeméer boo jël juróom fukki ak ñeent day jànguñu góor a jigéen juróom fukki ak ñeent te na Sénégal lim yi ëpp ñi sax waaye jigéen ñooñu ëpp góor ñi ñoom it ñàkk jàng ci ñoom la gën a bari juróom benn fukk ak ñaar xam nga bari na cible maanaam ñi nga xam ne nag lañu bëgg a mooy ñi nga am fukki at ak juróom ba juróom fukki at ren ci Sénégal ñu ngi sunu ñeent fukkeelu at ak juróom-ñaar <coughs> maanaam kon ñeent fukki at ak juróom-ñaar ñu ngi màggal alphabétisation yu Sénégal tomb bi Je la ñu wax ci français diversification et la transformation des espaces d'apprentissage d'alphabétisation face aux défis du développement du capital humain Nous avons, rek diversification tënk transformation tënk développement humain ci ñu gisaale ci biir ni ñaar l'amérique bu le rek développement humain bi bu ñu nee diversification baat nasaraan boobu bu ñu ko bëggoon a firi ci wolof bu ñu xool noonu daal bi nekk fii rek mënuñ cee firndeer lu bari maanaam njàngum alphabétisation mënees na koo defee ci kër mënees na koo defee sax suufu garab mënees na ko defee ay école française ndax ci programme état yi PNAFJA ak yenn programme dañuy may classe alphabétisation yi ñu nekk ci classe su école publique lundi soir mercredi soir ak vendredi soir samedi wala dimanche Waye mën noo jàng ci biir kër mën nañoo jàng ci barabu liggéeyukaay maanaam boo demoon dëkk mel ne tefes jigéen ñi nga xam ne dañuy soppi jën def ko keccax yéet mbaa yu mel noonu fa ñuy liggéeyee mën na am classe boo demee ci benn koñ jigéen ña fa dajaloo di def saabu mbaa di def cuub mbaa beneen liggéey mën na am classe kon barab yooyu yëpp ba ci kër gi ba ci suuf garab ba ci place publique ba ay centre ay magasin foye femme yooyu yëpp ay barab la yoo xam ne barabu jàngukaay alphabétisation la waaye jamono dafa dox jamo jamono dox na ba place yooyu nag léegi fokk ñu def ci ñaari mbir bu njëkk bi ñu fexe yooyu nekk ay place yu attractif yu accueillant manam nit sawar fa dugg dugg fa neex lol ndax dafa bakane waye mu nek place yo xamne lu weesu aspect attractif bi mu nek également classe yo xamne war nañu améliorer la fa nekk muy lu am solo kon yoy yeb amoon ay place yo xamne nek na ay place yo xamne meun nañ fa jangé alphabétisation waye jamono dafa dox bi jamono doxé nak yooyu dañ koy teyé waye dañ koy yok nak and ak jamono moy indi baatu transformation ndax bu nee transformation nak léegi moy classe yoyu outil ya fa nek yi ñu jëfandikoo <coughs> nañuy fexe mu and ak jamono. kon léegi suma né transformation rek damay dugg ci batu utilisation du numérique et des techniques Yo, xamné dafa and ak jamono xam nga buñu né numérique fi ni. manam lepp lu jëm ci mbirum technique de l'information information la communication dafa and ak jamono té moy indi ni. transformation bi ñuy wax day dugg ci loolu maanaam ñu jàng jaarale ko ci ci numérique te léegi numéro yi fi nekk lan la <clears throat> portable tablette GPS parce que léeg-léeg te ñu jamono ji lu jëm ci prévision météo GPS moo ñu koy may dafa ànd ak jamono ak yeneen i mbir yu xaw ci jamono ci àdduna ak ci dëkkuwaayu doomu aadama ak li ko wër loolu dana ca dimbali. beneen bi également également luñu wax bi euh, exposition bi amna fa ay jigen ño xamné dañu ay liquide ak ay dur mais ñoñu lolu ñuy défar ak xeyna yeneen ñuy défar bëgg nañ ko jaay Sénégal ak bitim réew buñu ko ci yi seen wala seen dëkk di xam marché produit ñaata la actuellement. ak naka la tëddee mooy prix marché ci produit ba muy jaay fi mu toll jamono jooju à partir du numérique kon numérique boobu kon gis nga non seulement dina transformer classe bi léegi ñu jàng jaarale ko ci xarala yi danaa ci ñëw waaye lu weesu loolu la ñuy liggéey ñoom pour ñu ànd ak jamono numérique moo leen koy yombalal ñu xam prix bii actuellement fan la toll waaye mba marchandise bi wala service bi wala produit bi nii la tëddee jamono jii ngir nga mën ci am lu gën a ñoŋ lii la laaj lii la laaj te loolu ci numéro moo la koy moo la koy yombalal kon buñ jëlaatee beneen misaal jamonoy covid 19 classe organisation yu bëri dañoo tëj ndax dañu woon toog leen seen kër di jàng kon gis nga numéro yi léegi foofu lay duggee maanaam mën nañoo jàng léegi te soxlawul ñuy daje te gis ngeen ni jamono jooju réunion yu bëri séminaire yu bëri foofu lañ ko jaaralee ba def ko ndax bu ñu nee woon Covid bi ñëwee na rek na ñëpp toog musiba naaru lay la boole ci nag koom bi defe naa ni ñu bari Sénégal gis nañ ni méttitam foo ko nat wees na ko waaye am na ci ñoo xam ne xarala yi moo leen ci sauvé kon ma ni classe allocation ci monde bi yi nga xam ne yëpp amoon nañu des structures éducationnelles di jàng jaarale ko ci xarala yi ñoom bi koy bi ñëwee tëjul seen classe dañoo continuer di jàng waaye yi nga xam ne lool rek lañ amoon te moo bari woon ci ñun dañoo tëjoon yi kon ah mënatuñoo jàngatee numéro bi boolewu ci ah, amu amu ci kooku foog ñu yóbbaale ko ndox lu am lu am solo la ci jamono ju toll. progrès technologie fi ñu toll mënuñoo jàng rek ci ay classe jàng rek ca kër ga jàng rek ca koñ ba jàng rek suuf garab ga fokk ñu xam ne léegi jamono soppeeku nu fokk ñu jàng jaarale ko ci xarala yu bees yi te boo xoolee programme état bi ñu ko tuddee PNEBJA programme national d' de base des jeunes et des adultes analphabètes

bu taxaw maanaam ressources humaines yoo xam ne ànd nañoo jamono mën nañoo ànd ak jamono. ci naka lay demee boo jëlee ñaari misaal lay joxe bu njëkk bi ñu jàng alphabétisation dafa am ñeenti domaine ci programme bi. domaine un mooy langue maanaam kàllaama bi domaine de mooy mathématique beneen domaine trois mooy éducation à la vie boobu nag lépp lu jëm ci citoyenneté mu nga ca biir. changement de comportement mu ngi ci biir santé hygiène mu nga ci biir environnement mu nga ci biir démocratie mu nga ci biir kon xam nga loolu am na solo déjà mais beneen quatrième domaine bi moom solo mooy entrepreneuriat autrement dit foofu léegi ci alphabétisation dañu jàngal ñuy jàng ci alphabétisation nu ñu nekk ay entrepreneur exemple misaal léegi nii maa ngi ko gis bu ma xoolee ci exposition bi am na benn groupe boo xam mi ngi tudd je crois euh, dafa turam mais dañuy defar épices naturelles. ah voilà ay jigéen lañu yu mbolo liggéey ba defar produit bob té produit bob bu ko sénégalais xamé xamee benn bouillon dootul jar fay Sénégal mais ñooñu non seulement li ñuy liggéey war nañ ko valoriser mais war nañ leen dimbali ci walu xarala yu bees yi ba lii ñu koy biti yóbbu bitim réew beneen kuréel bu nekkaat foofu mooy jet je crois jeunesse pour le développement ñu ngi defar mais également euh, yeneen produits yoo xam ne ñoom it ni ma waxee ñu leen laay wax ci ñoom bu ñu leen jàppale dañu leen war parce que liggéey nañu loo xam ne ci allocation la jaar mais pour ñu mën koo wane bitim réew waaye mën ko également jaay ci réew mi mais loolu dafa am lu mu àndal ci wàllu accompagnement mais pour ñu xam ni kon ñooñu léegi loolu ñuy liggéey mënuñoo bañ a ànd ak jamono ñu toll ak xarala yi ngir lañuy liggéey mën a dem bitim réew am na beneen ñu ko wex paden mo ne na ko fee karab ku ne xam nga ni sénégal ñu ngi jooy di jëfandikoo ak di sol di lekk di naan loo xam ne li ci ëpp bitim réew lay jóge te monte day lu ci bëri ñu ngi koy produire fii dama jël karot parce que karot bi moom la waa paden wane fii am ay téere bu ngeen ko nu ñuy bayee ci ñaay bi mu sotti def ci ay saaku saaku ay toni toni ton boo jëlee misaal moom méngale ko ak misaalu soble bi ñuy bay Sénégal bu leen jàppale woon tey ak xarala yi noo danañ mën a jaay yooyu niñ ko war a jaay Sénégal ak bitim réew te du am jafe-jafe waaye ñu mën a ànd ak jamono fi mu toll ci xarala pour ñu xamee ko noonu kon ñàkkuñu ñu mel noonu te ñooñu alphabétisation moo leen jur moo tax ma ñëwaat di insisté ci point boobu di entrepreneuriat ndax ñiy jàng ginnaaw bu ñu jàngee ñeent domaines yi. dañuy jàngaale entrepreneuriat liñ ci njëkk a jàng mooy gestion outil de gestion processus fonctionnement technique ba ñu xam naka la ñuy jaayee produit bi ñuy liggéey te produit loolu ci seen biir classe alphabétisation la ñu ko jàngal parce que classe bu ñu tànn bu ñu jël di fa jàngale alphabétisation day jàngale benn activité génératrice de revenu ci misaal boo jëlee benn classe ci quartier tey euh, Thiès Ouest bi ñu jël comme activité génératrice de revenu Euh, defar cuub lépp luy façon cuub dañ koy defar ca classe ba ba kenn ku nekk mën koo defar bam mbooloo mën koo defar bam ñu mën koo jaay biir Sénégal jaay ko bitim réew moom la ñuy jàng ci biir programme organisation waaye li manqué mooy xaray li xarala yi nga xam ne war leen a gunge ngir loolu mën a ñoŋ na mu war a ñoŋee muy nekkoon lu am solo lu ñu war a mën na bàyyi xel ci ñi bëgg a defaat programme alphabétisation mais alphabétisation bi jamono ñu tollu fokk mu and ak xarala yi ndax loolu mooy tax ñu tabax capital humain bu and ak jamono bu mën a yanu loolu ci do foofu ba mën koo defar ci réew mi ak bitim réew waaye ñu dolli ci ni beneen exemple mooy toujours alphabétisation ma jël benn exemple daara alxuraan ñu bay jàpp lañ ni taalibe yi dañu jàng alxuraan rek dem seen yoon mais am nay programme alphabétisation yu nekk ci biir daara yi xale bi day jàng daara alxuraan jàng métier am nañ actuellement au moment où parle ay classes yoo xam ne ci biir Fouta ñu ngi jàng les métiers de l'électricité les métiers du bâtiment ci alphabétisation xale bi day jàng alxuraan benn moment benn moment mu ñëw jàng métier moom dina mokkal métier mi wàcc alxuraan bu paree nekk quelqu'un boo xam ne il est professionnel dans le métier. ñu mën koo embaucher waaye moom mën a dem ba créer entreprise am jël ñeneen c'est pourquoi les jeunes et les maanaam jigéen ñi ak ndaw ñi ci alphabétisation naam mën nañ fa jaar ci nii ñu ko waxee ba ñu nekk capital humain bi nga xam ne actuellement dëppoo na ak jamono mën na yenu li muy produire mu am njariñ Sénégal am njariñ bitim réew waaye dafa laaj gunge ci wàllu xarala yu bees yi jigéen ñooñu loolu ñuy def noonu dañ koy jiital ci organiser wu ndax liggéey boo def dafa am type d' organisation bu koy yenu xam nga bu ñu nee type d' organisation e mën na nekk association mën na nekk ONG mën na nekk leneen mën na nekk mais li ëpp ci jigéen ñi Sénégal ci classe organisation GIE la ñuy def groupement d' économique parce que la ñuy liggéey ngir yokk dañuy def organisation boo xam ne dañu am moyen matériel am moyen humain am moyen financier di jur ay service wala ay biens di ko jaayaat ngir amaat dara loolu mooy koom buy jur alal activité génératrice de revenu moom lay jigéen ñi def ci classe alphabétisation yi ba nekk ci ñoo xam ne kenn ku nekk di jàng si mën nga métier mi mbooloo mi mën na ko waaye nag bu leen gungewul fa ñu toog sax dañu xam produit boobu ñaata lay jar fii ñu toll nii tey suba ñaata lay jar wala ñaata la mën a jar bitim réew parce que ci wàllu xarala dafa des kon ñu jàpp ni xarala yi jamono yi mënta ñàkk ala wax nañ ko sànq classe yi dañ koy météo meloon mais xarala yi mënatu la ñàkk jamono ñu toll bu ñu bëggee ànd ak ak jamono. ma tënk nag jeexalee ne ndax lépp mën ne su ko wax wax benn yoon waaye dañuy junj rek ko defee yeneen yi xëy na yeneen barab wala yeneen ndaje mën na jur wala yeneen jokkoo. ñu gën a yaatal wala weccoo ay téere ki ay jumtukaay yu tax xëy na yeneen yu sew sewaan yi ñëpp mën cee mën cee jot. kon mbooloo mi jamono yi ñu toll nii di à l'orée du vingt-et-unième siècle alphabétisation bu ñu ko waxee fokk mu jëm ci ay xam-xam yu wér. fokk également mu jëm ci ay changement de comportement yu wér mënuñoo yaakaar am un capital humain développé en continu di gis yi ñu gis tey jii ci biir Sénégal ci wàllu comportement. fu ma neex lekk sama banaana sànni fu ma neex nax naax sama ndox sànni fu ma naan sama café Touba sànni li ma ci naqari mooy naan café Touba la kopp gi ak yeneen yu mel noonu medd mu ne moo romb kazaalika na ko noonu barabu daje waaye terrain yi boo demee palaas yi changement de comportement humain mënta ñàkk d'abord ñun ak sunu dëkkuwaay sunu biir kër ak barab yi mais sunu environnement te ci biir njàng mi wax noonu tey jii nii lépp lu jëm ci ressource naturelle Sénégal

ma dolli ci jeexale benn exemple fi ñu toll nii mbirum mbay parce que jigéen ñu ma la wax nii boo ci àll bi jigéen ñiy bay dañ leen a formé noonu ñuy def agriculture mais jamono yi ñu toll mën dañoo def agriculture ni ko ngóor seen daan defee ca jamono yu njëkk njëkk ya dañoo war a def agriculture mécanisée numérisée ba pare am ay cité yoo xam ne daa ànd ak loolu mais bu ñu bëggee ay production rëy yu ànd yu yu mën a dem fu sori ànd ak jamono boole ci fokk ñu dem foofu bàyyi lii te loolu mooy gunge bi ñuy xaar ci autorité yi moo xam fii la moo xam ci kaw la bu ko defee njuréef li génn ci allotisation wala jàng jaar ci allotisation mooy soppi Sénégal bi ñuy xaar ëllëg muy un Sénégal émergent un Sénégal boo xam ne tout au long de la vie on aura à apprendre à entreprendre merci de votre attention